وسلم تسليما مبك جلدي مبك طالبي نوغ لين دي نيو باخ دي لين جار تي جوتاي بيغا خامتاني دانون كو عمل نيوات في تي جي غير عملات كو في شيخ محمد المنتقى دي نيو سيرن عبد الله مبك مام سيرن محمودا ميغا خامتاني موي كليفك جوتاي بي نيوغ في تي مركز شيخ محمد الجوبه مم سرين مسام مبك nekk fii ci Guédé te loolu weesul mooy jotaayub alquran boo xamante ni daanoon ko amal ñu ñëw fas yéene ko amalaat ngir bañ a guddal nag danañ jox Serigne Mouhamed Cissé mu ubbi jotaay ci alquran su noppee itam jox Serigne Khadim Touré mu wax si turu rabita bi su noppee jox Serigne Mahamadou Bachir mu wooti turu daara ji teg ci Serigne Modou Biram Diop mu wax ci wàllum organisation bi. A'uuzu billaahi mina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 daara ji nga xam ne mooy internat sëñ Mahmoudan Diop be Mbacké si turu mboolem daara alxuraan yëpp si biir dëkk bi ñu yëkkati suñu kàddu di am mbégte bis bu màgg bis bu tedd bisu sargal bisu alquran di bis boo xam ne tout tànk yi nga xam ne ñoo doon jàngi alquran fii si daara ji daara sëñ Mahmoudan si njiital sëñ Seexuna Lo ñoo wattu téere yàlla bi si anam gu rafet euh, mbégte mi nga xam ne amee nañ ko si suñu xol am yéene génne ko si biti bokk ko mbooram mbokk yi waxee ñu jiitu ñu di si woo mboolem julit waaye di yëkkati suñu kàddu si kuréel kuréel gi nga xam ne mooy rabitatul madarisil quraaniyya fi Sénégal di kuréel gi nga xam ne moo lënkale daara yi nga xam ne ñoo nekk fii si biir Sénégal si turu njiit li nga xam ne moo nekk si bopp bi di sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Mamadou Fadal sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Habib sëriñ Abdoul Aziz Touré Faas sëriñ Basiru Dieng سنجارب سرين محسن جوب اك سيمن سن مختار نار لو اك سن مصطفى جوب دار سن مور جوب سندار ني كليفا ييغا خامن ني كليفاي رابطه بي ني ييكتي سن سونو كارد سي سن تور دي و مبولم داي القران ييب مبولم فروع ييب مبولم خلايا يي فوفي سيكسيون نيك اك سو سيكسيون ني غي لني و سي تورو داري انترناسيون محمود دون جوباي مباكي دي واخني ني غي امبكتي di woo mboolem jamhiyaat yëpp bépp daara boo xam ne wala bépp jamhiya boo xam ne mi ngi yëngu si jàng ak jàngale parents d'élèves yi soppe alxuraan yi donga daara yi ak mboolem koo xam ne bu sëriñ bi woote woon santaane am xëy wala am ngont si tool nga am yéene yi xëyal ko mbaa nga gontul ko sëriñ bi wax na ne bustaani kitaabullah sama euh, tool mooy bi yàlla bi woote bi nag béywuñ kenn béywuñ ñenn bay béywuñ fenn di ñaan rek ñu àgg si ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi nga xam ne noo ngi niy déglu ak di nu bàyyi xel ak fu nu mën a nekk noo ngi leen di nuyu te di leen siyaara ci turu daaray internat sëriñ mahmudan ci njiitu sëriñ na ak ci turu sëriñ daara yi mu àndal légéey bi ak ci turu donga yi ak ci turu wayjuru donga yi yëpp mboole seen nuyu leen siyaara leen te di leen jàttali wooteb daara ji bisub lu muy woote bisub tari alquran liggéey bu rëy bi xam ne daara ji mi ngi koy amal ci biir daara ji ba yàlla dogal am ñu ca wattu nu fa yéene leen a wutal bis ñu tari ca ñu neexal leen ñaat gone yi ci ñi fi des bégalante ak ñoom loolu moo waral woote boobu woote boobu nag ñu jàpp ko alxames le premier décembre incha allahu taala fii ci daara ji waye wote bu melni buñu ko wote ndigal la ca kaw buñ ko tuddé sëriñ bi fi nekkal sëñ Touba tax muy Cheikh mamadou muntaha ibn Cheikh mamadou Basir ibn khadim rasoul yal nako yalla gëna sammu ta ko ak wër bam joggé fofu ñew ci kër sëriñ Masamba sëriñ Mam mor mi nga xamné nekk ca bop njabot ga ñi diko siyara ta diko ñaanal ko ak ak wër wacc ci kër sëriñ Mahmoudan ci kilifteefu sëriñ Cheikh ak mbolam njabot ga waye mu jaare nak ci sunu buntu ci kër ga di kilifa ci nun muy Cheikh Abdoul Ahad moom Serigne Mahmoudan kon ci turam ak ci ndigalam la lii lépp amee woote boobu nu woote nag ah, ña jiitu ca woote ba mooy ñi seq daara ji muy way juru donga yi daara ji moo woote gone yi lañu wooteel seeni way jur lañu ñu njëkk a woo ñu ñëw ànd ak waa daara ji gàttanu seeni gan woote boobu nag bàyyiwuñ ci kenn mboolem lii kilifa ci yoon wi njabootuk sëriñ bu mag bi mboolem sunu kilifa yi aju ci kër sëriñ ma samba ci mboolem buntu kër yi ci góor aku jigéen noo ngi leen di yëgal bis bi te yëg na seen bisu boppa noog ñoom noo ko bokk waaye di ko yëgal sunu kilifay bopp yi itam di njabootuk Cheikh Amadou Anta Bacc ci njiital sëriñ Abdou Salaam ak mboolem rakk ak njaboot yañu njaboote wàcc ca sunu kilifa ak bopp ga sëriñ Moustapha mi xam ne mooy taawu sëriñ Malick di sunu kilifa ak mbooleem ay rakkam ak bokki ñoom rek yeg ña aju ñëpp noo ngi leen di yëgal woote bii te di leen xamal na seenu woote mboolem bokk yi nu bokkal ñoom ci wetu wetu baay ñoom ñëpp noo ngi leen di yëgal woote bii te di leen di xamal ne seenu woote la woote bi bàyyi wuñu ci kenn noo ngi sàkku ñëpp bu na ca yeggee nu ñëw wuyi si bu na ca yàlla yóbboog jàmm it dañu ko bëgg a xëyee bëgg nañu képp ku aju ci wayjuru dongo yi loo naaje naaje ñëw na la fi waxtu ba juróom-ñeenti waxtu ak genn wàll fekk moom loo naaje naaje ndax bëgg nañu lu nu tabja tabja bu nu nee fukki waxtu jot na tari bi moom tàmmali fukki waxtu yooyu nag bu tari bi jataay ba dañoo bëgg mu doon benn jataay rek mooy dañu cay nekk di ca nekk ba wàlli tisbaar lu ca topp tuuti lañu bëgg a yëkkati jataay bi bu ko defee liggéey ba mat liggéey boobu nag di liggéeyub alquran daara ji dafa am haada mooy saa bu nu ko jàppee dañuy jël kenn ci kenoy alquran yi tudde ko ko tudde ga it tudde barkeelu la ren jii nag ñu tudde ko koo xam ne ku tudd alquran tudd ko te mooy sëriñ ndaam abdourahman loo mu baax ma nga xam ne moom la sëriñ tuubaa doon liggéey loo ci liggéey bu rëy bii di alquran mbokki jullit yi mbokki taalibe yi di nuyu di ñaanal ngir mbégte ci woote bi nga xam ne ñi koy woote di woote alquran daara jooju nag ki nga xam ne moom moo ko jiite di sëriñ Cheikhouna Lo moom sëriñ Malick Lo eh, muy ñoo xam ne buñ leen tuddee tudd ndaam kon dañu xam ne liggéey bi benn la eh, ren nag mu tànn kenn ci ñi nga xam ne dañuy dañ doon liggéeyal alquran muy sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo di kenn koo xam ne ci ñi sëriñ Touba tànnoon di koy liggéeyloo alxuraan la ci la bokk mu dubbee ko ko ngir darajaale ko loolu noo tax na sëriñ ba Lo mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Ndaam Abdourahmane am ci mbégte lool ba tax mu jox ñu ndigal ci lépp lu mu laaj ñu taxaw ca mu joxe ndigal itam ci ñu woo ci mbooleem ñi nga xam ne ñooy njabootuk sëriñ Ndaam Abdourahmane di njabootu ak taalibi yépp fu mu ne ci réew mi ndax bis la bu ko ñor bis bu rëy ci moom aousu billahi min asheytaan rajim salaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu ñu ngi soññee ci bis bi nga si ne moom lañ dëgmal di bisu daara yi institut islamique sëriñ mahmoudan jobbe mbàkke fii ci Touba Guédé tolloo ak tabla sëriñ mahmoudan jobbe ci yoonu Guédé di ci woo mbooleem kilifay diine yëpp waaye di ci woo mbooleem kilifay aada yëpp bis bi nag waxtu wu yegsee dafa am yuñ ci faral di def muy dëppoog buñ ne ginnaaw suba la di altine le 28 novembre nga xam si ne bisub xëy bale lay doon ak mbooleem waajtaay yi muy laaj ñu ci daan ànd ak service yu takku lu demee nekk ne service d'hygiène waaye wa UGC yi nga xamante si ne ñoo yor mbale mi di ci wo it mbooleem conseil yi nga xam si ne ñoo nekk ci maire bu Touba Mosquée ci njit la di Serigne Abdou Lahad Ka waaye di ci wo préfet sous préfet d'Endam ak préfet de Mbacké waye gouverneur de la région di ci wo it ministre de l'intérieur. waye di ci wo ki nga xamante si ne mooy seen kilifa di njitu rew mi di président de la république Macky Sall. di ci yoo it mbooleem ñi nga xamante si ne ñoom lañ seqal comité de organisation bi muy banqaas bu yaatu boo xamante si ne waxtu ci nekk ñu ngi daj ñu ngi leen di soññ bu baax ci liggéey bi di ci gën a soññiwaat suñu mbokk yi nga xamante si ne ñooy ñi ñuy gunge ci bis bi di BDS ak Sénécar Tour waaye SAP TM S CCBM Taj Zanba ak seen cuuraay Kër Xaadim waaye banque bi nga xam si ne moom na ci àndal di BICIS Sénégal waaye di ci woo mbooleem ñi nga xamante si ne ñoo ci bokk ñëpp di Serigne Seck C3S ak mbooleem kuréel yi nga xam si ne ñu ngi gunge ci bis bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di fàttali bis bi di premier décembre incha allahu rabbi war a dëppoo ak alxames bu soobee suñu borom subhaanahu wa taala ñu ngi. wàccee suñu kàdd foofu waaye di soññ mbokk yi ñu ko bokkal ak mbokki taalibe yeeg mbokki jullit yëpp di leen woo ci bis boobu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم صدق الله العظيم